ak wa TFM 2 ñu leen di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen tatagal fii ci madinatu cheikhul islam cheikh alhaaji ibrahima Niass radiallahu anhu ci bés boo xam ne bés yonent bi la alayhi wa sallam mi nga xam ne comme ni nga ko waxee moom la yàlla wax ci xàqam ne ko bu ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin wàccewu ma la lu dul ne danga nekk yërmande ñeyal mbooleem mbindeef yi kooku mbooleem ñeyal mbooleem mbindeef yi bésam ci lañ nekk nii nga xam ne dañ koy fàttaliku nga xam ne moom moo dagg mbuumi jaam ci ñun moo goreel xol yi mo gorel xel yi mo gorel jukko yi mo gorel jëf yi mo gorel doomu aadama mo gorel ku ñuul ci ku weex mo gorel ci ku weex ci ku ñuul ba nga xam ne ñun ñëpp dañoo ànd ci benn kàddu muy la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne arsalahu bilhuda wa dinil haq liyasrahu ala diini walla kër kariyal musrikun yàlla daf ko wàcce rek ci njub ak muy doxal njub mu jox ko diine ji nga xam ne mooy diine dëgg diine ji nga xam ne yàgg-yàgg rek dana raafal lépp luy diine ci kanamam ba nga xam ne ñépp danañ taxaw di wéetal seen boroom te loolu Cheikh Ibrahim mi ngay wax nii def cee liggéey lu bari kon soo ñëwee ci bés yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw nga ci bési Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ndax dundam yëpp nee na daf ko jox yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne ci la daan wax ne isa saara xayru naasi surtout waraahu wayn xalla ma fal masiru baidu su yonantu di dox rek maa ngi dox su taxawee rek jéeguwuma benn jéegu feneen mu wax fa ne fa in tasaluni an habibi wa sayidi fata habibullahi mal ma wa ma soo ma laajee kan mooy sama sang kan mooy sama maître li ma lay tontu rek mooy du kenn ku du taaxaa mi nga xam ne mooy yonantu bi sallallahu alayhi wa du kenn du ku dul yonantu bi sallallahu alayhi wa kon soo fi ñëwee ci bés yonantu bi ngeen ànd ak euh, télévision bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci diine ñu gis seen taxawaay yi ngeen taxaw ci këri diine yi emale kër yi emale nit ñi ci liggéeyal peuple bi nga xam ne mooy peuple yu Sénégal danañ leen tatal tatagal fii nii ci kanam suñuy taalube suñuy xarit ak suñuy mbokk di te danañ leen ñaanal yàlla danañ leen wax marhaban bikum xam nga Baye moom sooy laaj ci moom dara maanaam ñi teew ñépp te nekk ay toppam maanaam taalibe yi ak ñi nga xam dañ koy suivre soo laajtee rek koo njëkk a taseel rek mën na laa wax lu bari ci moom ndax lim def daf dafa fàngaaral fii ci senegaal ak ci bitim senegaal te lépp liggéeyal diine lislaam liggéeyal yàlla ak yonent bi la te comme ni ma ko waxee dem na ba nga xam ne nee na mu ne sama lépp yonent bi la wa huwa akli wa sarabi wa diini wa janaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama diine xataa mu ne mooy sax sama aljanna ndax sama xol bi ci lay beel ci moom ci bëgg ko waxtu wu nekk moo tax mu doon wax ne <coughs> mu ne may naa doomu aadama lu nekk <coughs> li yàlla maye nangu naa cee maye lépp <coughs> waaye mu ne li nga xam ne duma ko may kenn mooy ku ma gën a bëgg yonent bi sallallahu wa sallam loolu moom mu ne permettre kenn pour mu gën maa bëgg ki nga xam ne mooy seydil wujudi seydina muhammad ibn abdullah moo tax su rabiul awal bi su jubluwaan ni mu daan def mooy daf daan su desee fukki su gàmm gi desee fukki fan ba ca fukki fan ak benneel ba nga xam ne ci lañuy ñuy gàmm dafay daf koy teeroo ak di ko tagg ci ay wëy yoo xam ne léeg-léeg daan na ko wëy sax ba rongoñam dafay génn mooy comme lii ñuy def nii mooy mawlid bi ñu bari nag dañuy jaawle dañuy wax ne burdu ñii naan mawlid waaye burdu moom mu ngi ko naan def su gàmm gi demaan ba jeex ci lay def burdu bi nga xam ne ci la ñuy jàng eh, burdu bi Euh, foofu nag fa la koy tëjee ñu jàng alxuraan su ko defee tëj ñaanal mbooleem taalibe yi burdu bi nag mooy bi nga xam ne mooy la sang bu tedd bi defoon muy bu sëyru yi di di ci tàgg yonantu bi tàgg yooyu nga xam ne foo dem fi mu ne ci këri diine yi da nga gis ne ñoom ñëpp mokkal nañ ko ñu ngi koy jàng di ci bëggee yonantu bi di ko fàttaliku nga gis ne Euh, ñu soo demee fu mel ni suñ mbokk yi Tiwaawan danga gis na ñoom dañuy def euh, burdu njëkk euh, gàmm gi di agsi di ko teeroo yonantu bi Baye moom itam daf daan def lu mel noonu waaye ñun mawlid lañ ko daan tuddee waaye ñoom ñëpp yëpp tàgg yonantu bi la rek pour teeru ko mooy bi nga xam ne ci lay wax ne أهلا بشهر مولدي شهر الأولى وسوددي شهر النبي أفضلي شهر ربي الأولي شهر الفلاح والشروش شهر بي سادد موسح بين السهوم متوجين مكللي سنية ربي حتي شفي بمنطقي البديع حمد يا محمدي su deme ba ca fin ba nga gis ne mu ngi koy tëjee wa ali wa sahbihi wa zawji wa hasbi wa kulla ali hubbi ma salaam lakmali loolu mooy mawlid mi nga xam ne moom lay def ñëpp ku xam baay xam dynamique bi nga xam ne ci la doon dox da nga xam kaddu yooyu fa nga daan jugee ak ni ko xadraam di defee su ko defee mawlid lay doon nga xam ne moom la ñuy yonantu bi cheikh ibrahim ci la def mawlid Bobu, ci la créé ton boobu ñu koy woyee su ko defee dañ koy woy ba bés yu gàmm gi jot ñu defaat beneen boo xam ne suñ jàngee alquran moom la ñuy ubbee gàmm gi su ko defee mu jël siira nag di la wax yonantu bi njëkk muy juddu ca maamam yi ca baayam ci moom saxaaba yi ko toppoon xew-xew yi xewoon ci siira dana la ci nettali dina nettali yoo xam ne soo gisee taalibeem yi sax ñi ci jàng ak ñi jàngul ñépp ñu ci bëri dañoo mokkal siira di wax ba nga xam ne léeg-léeg sax benn boroom xam-xam day juum ci siira bi keneen koo xam ne jàngut mu jubbanti ko ndax yàgg déglu mawlit gi maa ngi ci nettali benn xew-xew dafa am benn maire maire bi ba mu doonee xale ci la daan ànd ak papaam di ñëw di di gàmmu si di déglu gàmmu bàyyi ni ñuy jàngee siira di tagg yonantu bi dafay ñëw ba gàmmu jeex mu nekk ci nekk ci ba doon mag ba am jëkkër ba am ay doom bi mu demee ba am ay njaboot benn bés mu toog dem ci benn gàmm xam nga léegi ñun gàmm yi comme dafa tasaaroo nga xam ne te loolu mooy dëgg parce que gàmm moom année bi yëpp dañoo war di gàmm parce que yonent bi mënuñoo jox ba jox ko gëddam gàmm yi ñuy def nii ci koñ yi gàmm yooyu am na ñu koy jéem a ŋàññi waaye gàmm yooyu dafay tax ñu fàttaliku lislaam di fàttaliku yonent bi parce moo gën ñu dajaloo di tëgg di fecc ak yooyu moo tax ñu bëri eewoo nañ ci léegi am suñ benn euh, waay buy gàmm bi ñëwee di gàmm bàyyi su daan nettali siira su demee daal ba ak si mu ngi nekk ci xisa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbëtt ma mbëtt mi nga xam ne yonantu waxloo woon na ko yonantu daal bàyyi daal su waxaan ba agsi ci mbëtt mi rek maanaam su ci tegee ay quelques minutes rek da gis rek noddu fajar day jot ñu noddu fajar après suñ noddee ñu julli mu dem benn gàmmu am benn eh, kenn ci gaa yi borom kam-kam yi muy gàmm waaye kooku biñ commencé gàmm gi rek bañ def mawlid gi rek biñ paree rek mu ne waaw mbëtt ma mbëtt mais soxna si ne eh, mbëtt mi teel na de ñu ne ah, mu ne mbëtt mii

am nañ ko moo xam kii français la jàng wala anglais wala chinois wala langue bu mu mun di nekk fexe na ba toj seen xol yi def ci réalité boobu nga xam ne moom mooy lislaam mooy yonantu bi sallallahu léegi nag euh, loolu mooy taalibe bi moo tax kooku dundam bi yëpp daf ko jox yàlla ak yonantu bi ba pare daan na nangu tamit critique parce que demoon nañ ba nommé ko mu nekk bokon na ci membre fondateur yu la ligue mondiale islamique nekon na ci membre fondateur yi amna ay plusieurs médailles yo xam d'un dañ ko jox ci l'islam ci universel. Al nga xam mom moy noir bu fa mës a jité arabe yeb ba paré def discours bo xam après sax Cheikhul Azhar ci boppam dafa jug di expliquer discours bobu mana yi ci nek ak yalla ni maye nit ku ñuul ni mun a màggee ci kanam nit ku weex parce que fii mooy université bi gën a mag al waaye tey benn noir la yàlla indi mu ñuy jàngal mu ne loolu day dëggal lislaam ni màndoo nga xam ne yàlla mu ngi ciy wax naan yaa ayuha naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuhuban wa qabailan li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla mu ne ee nit ñi mu ne bind naa leen ci diggante góor ak jigéen muy aadama ak awa naa jaalnaakum shuuban ma def leen ngeen di ay peuple wa qabaa'ilan di taarafu peuple yooyu ma def ci biir peuple yi ay famille yu fasantikoo ngir lan li taarafu pour ñu xamante te xam ne inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla moo tax nit ki bi mu juddoo rek xol bu set lay ñëwee waaye mu ne dinay dem ba raw malaaka yi parce que xolam bi dinay sell mu àgg ci bëgg yàlla ak yonent bi ak jaamu yàlla ak màndu ak sellal ba nga xam ne mooy gën malaaka yi parce que malaaka yi yàlla def leen bind ñoom mënuñoo def bàkkaar waaye doomu aadama la yàlla bind muy am ay bànneex di bëgg di comme li Baye di wax mu ne soo xiifee soo toggee ay waxtu loo lekk-lekk danga bëgg lekkaat so maré so démé tok ay waxtu da nga bëgg nanat so soo sa yaram da nga bëggu loko raxas-raxas da nga bëggu tamit raxasat ko mune sa so solee dal sax sa tanki sax soxla na dal yum sol su magaté da nga ko wat so xol bi bëggu na di beesaat day léeg nga nek ci njàqare day léeg nga nek ci mbégte te yépp da fay passé rek nga bëgg a motax doom dafa am waxtu ne rek dafa am ay bëgg-bëgg yoo xam ne fii mu ngi dund rek daf koy bëgg su ko defee soo fexee ba bokk ci jàmm yàlla yu kawe yi nag yow sa bëgg-bëgg yëpp dafay nekk ngir yàlla ak yonent bi rek moo tax yàlla wax ci alxuraan am na foo xam ne mu ngi definiir ñaari groupe yooyu dafa am groupe boo xam ne mu def ne daf leen di ooye mooy ñi muy wax ne ulaayika umul charul bariati mu ne ñi ñi nga xam ne ñoo gën a yées ci mbindeef ñi muy wax ne ñi ñoo gën a yées ci mbindeef yi sarul bëri at yi mooy ñi nga xam ne yàlla bind na leen jox leen xel boole leen ci ñi nga xam ne yàlla tàgg na leen ci walaxat karam naa bani aadama wa xamal naahu fi lbërri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin min man xalaq naa tafdila nga xam ne li yàlla bind yëpp doomu aadama la ci yàlla gën a bëgg moom lay yëkkati ci kaw jaww ji mu def ko euh, mu gën ci lépp lu lu yàlla bind wala kat karab naa ba nii aadama doomu aadama bi mu gënale ko ci lépp lu mu bind géej géej jéeri jéeg lépp mu notal ko asamaan muy naaw ci kaw jaww yi ni fi picc yi di naawee avion avion yaa ngi lay yóbbu ngay naaw te loolu yëpp mbëggeel bu la yàlla bëgg la su joxoon joxewutoon ndigal avion yi duñu mën a naaw yaa ngi mu ngi bind mbal mbanay mala yi fas yeeg yëpp nit ñaa ngi koy war di koy jëriñoo lu nekk rek yàlla ngi jël doomu aadama teg ko ci kawam pour wane doomu aadama bi ni mu yëkkati ko bàyyi mu ne doomu aadama yàlla daf koy yëkkati ba nga xam ne dafa dem ba daanaka yàlla ju juy dox ci kaw suuf la rek Hatta mune ne su deeyee sax bañ dem ba koy jébbal boromam di ko dugal ci suuf sax ba nañ ko dugal ci suuf si dinañ ko yëkkati ba ci kaw ñu dox ak moom lu sori gas delloo ko ci suuf te su buñ ko dellooyee suuf rek dañ koy delloowaat ci cosaanam léegi nag mu am na ñu yées ñoo xam ne mu ne li leen yàlla fonk noonu yëpp dem nañ ba nga xam dañuy dem ba bokk ci ñu gën a yées ci mbindeef yi mooy ñi nga xam ne rey tuur deret ray nit jëw nit di boole ay nit di jaxase ay nit di sàcc alal di agressé ay jàmbur di wax wax yu ñaaw di def lu ñaaw di rayante di yàq suuf si te duñ jëmbat garab amuñ benn njëriñ ci suuf si duñ jëmbat garab duñ gas teen duñ jox nit mu naan duñ def dara waaye heure bu ne rek su lu métti dalee doomu aadama rek loolu rek ci lañ bég waaye suñ gisee koo xam ne dafa am mbégte sant yàlla mu naqadi leen su ko defee ñooñu dañuy dem duñ julli duñ oor duñ saraxe duñ aji màkk luñ am ci alal lu mu bëri bëri dañ koy rëy rëyloo suñ joxee rek mooy ne dañuy joxe pour wane seen bopp rek ci biir doomu aadama yi waaye sellal ak wàcce seen bopp duñu ci def dara mu ne ñooñ mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy charul bariat yi nga xam ne dañoo bon a bon ba nga xam ne mu ne rab rabi àll yi ñoo leen gën parce que yi àll yi yàlla dafa leen a bind ba nga xam ne ñoom lekk ak naan ak sëy loolu rek lañ bëgg ci seen bakkan su ko paasee bëgguñ dara waaye mu ne ñooñu di ñuy suufe yépp yàlla bind na à côté beneen groupe bi doomu aadama boo xam ne ñoom lay ooyee ne xayrul bariyati ulaayika humul xayrul bariyati mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ji mbindéef gën ji mbindéef yooyu nag mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy wax laa ilaha illallah di tudd yàlla dañuy dem ci ndigal yonant bi dañuy jàng alxuraan dañuy julli dañuy aj dañuy oor dañuy saraxe dañuy def lépp loo xam ne rek yàlla mu ngi ko digale te amuñ ci pratique yi rek waaye seen diggante ak seen bopp seen diggante ak seen xol dañoo dem di ci doxal seen jëflante ak yàlla ci ci topp ndigal yonantu bu tedd bi nga xam ne ñu ngi ci bésam ba nga xam ne soo leen gisee rek dangay gis ne ñii ñooy gën ji mbindeef moom mu ne ñooñ tamit su boobaa dañuy dem ba nga xam ne ñoom ñoo gën malaaka yi dañuy dem ba àgg ci sàppe ñi nga xam ne ñoom ñooy sës ci yonantu yi duñ mu amuñ droit pour oote ne ay yónnantu lañ parce que buntu yónnantu yàlla tëj na ko waaye danañ nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ay xulafa yi nga xam ne ñoom ñoo doon yónnantu yi ci baax ci dimbale doomu aadama yi di leen jox seeni alal di leen jox seeni xam-xam di leen jox seeni itte di àtte guerre yi di nandal ñi mar di jëmbat ay teen di bay di jox nit ñi ñuy dundee di leen jàngal di leen yar di leen takkal ay soxna ku ci gaañu ñu ñëw taxawu la ku ci am problème ñu ñëw taxaw ci su ko defee di leen jàngal jub ñu ci meroo ñu àtte leen mooy taxaw bi nga xam ne mooy taxaw bi nga xam ne moom la chef religieux yi di taxaw euh, ci seen diggante ak euh, doomu aadama yi ba nga xam ne soo ñëwee dëkk bu mel ni Sénégal da nga gis wegeel gi nga xam ne jox nañ ko sëriñ si nga xam ne lu lu yàggale te dëgër moo tax malgré tappaas yi nga xam ne ñu ngi koy tappaas diine ji di ko tappaas chef religieux yi pour suufeel leen yooyu yëpp am na ñu koy def waaye suñ demee ba pare rek da nga gis ne tey la leen nit ñi gën a bëgg tey la leen nit ñi sàkku pour gën a jege tey la nit ñi di gën a jëflante ak ñoom ngir jukko yu rafet yooyu nga xam ne ñu ngi koy ji doomu aadama yi jukko yooyu nag su ma ne chef religieux daw ne ku juddu nekk chef religieux rek laay wax waaye jikko yi dafa nekk benn dynamique boo xam ne mag ñooñu loolu lañ fi bàyyi doom yi ci nekk di ci roy bàyyi ak euh, maam yi ñooñu kenn amoo loo leen wax parce que li bàyyi ak maam yi nekkoon rek ci lañ nekk di ci liggéey waxtu ne mais su fekkee ne nag dafa am lu ci rax su boobaa nañ xam ne loolu lu gaar la rek waaye loolu taxtoon a jóg sëriñ si moo tax yàlla def leen ñu dëgër ci liñ nekk ba léegi moo tax dëgg-dëgg euh, ñu ngi di respecté di leen nuyu xulafaaw yi kër diine yëpp ñu ngi leen di dimbale ñu ngi leen di euh, nayu di leen màggal di leen ñaanal yàlla di sàkku tamit yàlla dimbale ñu ñun ñëpp di wax di leen wax na ngeen leen respecté yéen ay taalibe ngeen waaye man li may digal taalibe yi mooy ku ngeen gis ci chef religieux yi ak ci jullit yi na ngeen leen bëgg na ngeen leen respecté parce que loolu la ñuy yonantu bi sant waaye man maay diw maay taalibe diw man fii laa bokk ma bokkoo fenn ci yàlla su fekkee jullit dëgg nga ci li yàlla ak yonantu bi indi rek foofu nga bokk soo ko beroo rek yow leneen nga indi loo xam ne bokkut ak li yàlla ak yonantu bi indi moo tax fi mu ne am na ñoo xam ne am nañu ay yabeel yoo xam ne ñu ngi koy indi ci certains chefs religieux mais njuumte yu mel noonu moom moo tax ñu leen di sosal waaye sëriñ dëgg moom liñ ko xamee rek moom ñëpp xam nañ ko mooy ragal yàlla jaamu yàlla dimbale doomu aadama yi te nit ñi daf ci am ay intellectuels yoo xam ne dañoo foog ni sëriñ si dañoo am alal ju du jeex su la benn président recevoir wala benn ministre sax ñu ne jox na ko ay milliard millions ñi naan na ko ay milliards fekk joxuñ ko dara ñoom dañoo ñëw indi benn enveloppe soo xam ne biñ koy indi njëkk muy agsi sax jeex na parce que dañ koy tas jox ko ja jaamu yàlla yi nga xam ne dañ leen di ñëw tiim leen ak seen bët yu xonq ak ñàkk ñii seen soxna yaa ngi am doom a ngi feebar ñii ngi ci hôpital ba tëdd bugg ordonnance te mbay rek lañ yaakaar te mbay mi trois mois rek la su ko defee. ñoom su boobaa loolu duñ ko mën a faj loolu la waaye dëgg-dëgg ku nekkul ci loolu nag terewul nag am na xam ne dañuy def business di ut di ut rek di ñu am na yokk rek su paree ñuy denc rek waaye léeg nga gis ku ut ut bi su dee ut ni mu ko utee rafetul sax li mu ut day dem ba ci digg rek mu yëpp yëpp yàqu waaye ku jokk ci jàngale yonantu bu tedd bii nga xam ne la la ñuy wax tey ci ay mbiram di wax ci Cheikh Ibrahim mii nga xam ne Seyda moom ci la ci lay laaj question mooy Cheikh Ibrahim li mu digal taalibeem mooy na ngeen di julli na ngeen di or na di jaamu yàlla fokk na ngeen fonk les cinq de lislaam boobu mooy lislaam bi ci topp mooy imaan na ngeen fexe ba am imaan gëm bés penc malaaka yi ñoom aljanna ak safara yooyu ñu ci wax yëpp waaw ak téere yu njëkk yi yoon yooyu yëpp gëm malaaka yeeg yépp su ko defee soo ci yàggee danga am imaan ñetteel bi nag mooy fi ñu indi mooy fi mu tojee xol yi def ci mbóoti laa ilaha illallah nga xam ne dañ ne in taabudullaha ka innaka taraa wa in lam takun fa innahu yaraak ngay jàmm yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis wala soo ko gisul sax del jàmm yàlla ba mel ni yàlla mu ngi lay gis am nañu jaamu yàlla ba gis na ñoom ñu ngi janoo am nañ ci yàlla janoo ñooñu dañoo mel ni ñu ngi koy gis am na ñu ko jaamu tamit ba gëm ne yàlla mu ngi janoo ak ñoom koo xam ne soo gëmee ne mu ngi janoo ak yow dëgg dëgg danga ko bàyyi xel da ko ragal te da nga wéy ci ay diggalam soo demee nag ba àgg foo xam ne da dem ba gis na yaa ngi jëflanteeg moom yaa ngi koy gis ba tey doo def lu ñaaw ci kanamam su ko defee sa jaamu yàlla dafay complété kooku nag loolu yëpp li ko fi indi. mooy yonantu bu tedd bi nga xam ne Baye daf ko joxoon dundam bi yëpp moo tax bi foofu nag fa la ubbee benn bunt boo xam ne mooy xale yi ngeen di gis ñu dañuy tarbiya ñu naan waa Kër Bagnès yi dañuy wax ne dañuy xam yàlla dañuy gis yàlla ak dañuy yooyu yëpp fi mu lay yóbbu ci sa xol rek la moo tax fi mu soo waree àddina bi yëpp danga gis ne foo dem rek janees bi ñu ngi daw jëm ci moom

bëgg yàlla ak topp ndigal yonantu bi nga xam ne Seyda Zahra posé na ko comme question mooy yonantu boobu nu bàyyi daan def ci jamono yi nga xam ne ñu ko doon dëgmal nga gis ne jàngat yi ñu def ci moom loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ko occupé woon ba nga xam ne daf koo jox yëpp moo tax fi mu dañuy wax gàmm rek waaye gà bàyyi moom bés bu nekk rek gàmmu la ci moom parce que léppam rek yonantu bi la ko joxoon moo tax fi mu ne dañuy wax ne benn bés la voix l'Amérique mu ngi koy wax mu ne ñetti regroupement ñoo gën a bëri ci àddina bi fi mu nekk mooy coupe du monde ak euh, aji Màkka ak gàmmu Nigéria mu ne ñetti regroupement yooyu gis nañ ne ci àddina bi ñoo ci gën a xumb te mu ne coupe du monde ñii football ak ñii arabitoog ñoo ñoo nekk ci digg terrain bi waaye ni gàmmu Nigéria moom ci digg bi ci biir terrain bi ak ñi nekk ci biti ñoom ñoo gën a bëri màkka tamit da nga gis ne ay réew yu fasantikoo ñooy ànd ñoom ñooy tase ci benn place waaye Nigéria benn réew mooy dem dajale ay millions de personnes te li ci jaaxal nit ñi mooy millions yi tase yëpp France daan nañu wax ne dañ ciy def ay études ba léegi def leen a jaaxal maanaam li ñuy rey ci nag ak xar ak bëy ak dund ba fa nekk ci fi ñu defee gàmmu gi dañuy wax ni millions de personnes yii nii. danañ xiif parce que lekk gi mat mënul leen a suur waaye chaque année suñ ko defee ñëpp danañ lekk ba suur danañ naan ba màndi danañ dem ñibbi ci jàmm te incha allah duñu am benn problème ku mel noonu nag dajale bi mu dajale nii ñooñu ñu topp ko nit ñi war nañ cee def ay études pour xam secret bi nekk ci biir moo tax jëfe Baye.